comptable mais man li ma dès le début man je suis un académicien je un doctrinaire je suis mais gis nga bi ma gisee libellé bi man la libellé libellé texte changement constitutionnel ok quand l'article 27 la qu'il crée là dès le début man ma gis ko man j'étais pas je pense sax dama mel ni j'étais au Sénégal maa ngi woon Nations Unies mais depuis maa ko gis laa xam ni il la possibilité de se présenter maintenant à lui de se présenter ou pas. il la possibilité de se présenter mais mais il tamit lu mu wax moom. waaw li mu wax loolu à part. normalement mais mu wax. waaw moom ba mu koy lu tax mu wax ko lu tax yow. est-ce que bëgg nga Sénégal stratégiquement. non mais est-ce que bëgg nga Sénégal mais bëgg naa Sénégal moo tax moo dama bëgg Sénégal non mais loolu c'est pas moo tax nga appuyé troisième mandat. Babacar Pape Malick Pape Malick. waaw Macky Sall il quitte la tête du pays. kon en ces temps-ci. waaw le Sénégal sera en réce ira en récession. pourquoi récession. économique diplomatique. mais mais lu tax loolu. non parce que y' a pas euh, le dispositif qu'il a mis en place la taxonomie de gestion. ban ban dispositif ni yow yow gisoo dëkk bi xanaa doo génn. bien sûr damay génn kay. mais yow kañ nga kañ nga nekk journaliste. kan man mais pourquoi nga may laaj. exemple man nekk ma fi. non dama lay jox dama lay jox dama lay jox poser question. man bu ma laaj dama lay expliquer ne. waaw vas-y sa constat ak. mais ça n'a rien à voir ak sama constat ak sa constat du benn. waaw parce que man sama constat man xam naa ñi nga xam ne ñi ngi am liggéey. parce que nit réew pour nga am ci liggéey wala nga def ci dara da nga koy jàng. wala nga def concours. wala nga am lu dugg gis naa nit ñaa ngi am nit ñoo xam ne ñu ngi ñaata di am seen liggéey. taux taux de pauvreté bi ñu wax Sénégal. Euh, la pauvreté elle est culturelle. Okay. c'est une conception en soi-même. Okay. qu'on est pauvre et autres. dans les autres pays xam nga nit ñi tëdd di famine di xiif. Mm-hmm. mais Sénégal foo fekk quand même ngi lekk di naan yow war nga mën a yow en tant que journaliste yow war nga mën a toog consciemment consciencieusement. Mm-hmm. nga ne Sénégal li ñuy dundee. ak li ñuy lekk li ñuy naan ak costume bu rafet bi Mouhamed sol ni gis nga ni mu ko parangé nga xool ndagam Mouhamed mii ñeme nga koo gis di ko yërëm wala ngay tudd la yow xool nga li nga sol. le fait que le euh, li nga wax ay détails la quoi. non détail. ba si bien sûr ay li nga sol. waaw dama ne yow bu bu bu vous êtes dans quelle non non du ma posé ay questions man maa ah, ma fii et ay questions yu nga may laaj quoi. ay lu nga sol loolu am solo mais li ma bëgg a moom mooy xam nga prison yi mu ngi fees dell actuellement. waaw pour man loolu moo gën am solo ak lu ma sol lu ma lu ma sol. et yow loolu ça vous de quoi le fait que prison yow xam nga indicateur. indicateur la. le un pays en en émergence en pays buy développé. waaw di émergent. la criminalité augmente. Sénégal xam nga xam nga économiquement fan nga tax dëgg comme mooy suñu position ci Afrique mais suñu position ci Afrique peu importe c'est une conséquence non dama lay comme que dugg ci moo tax ma nekkee ñun pays bu ñu mën a ci Sénégal àdduna bi ah, xam nga indice de indice de perception corruption Sénégal ñaata mais qui est corrompu non dites-moi qui est corrompu non dama lay wax ne indice de perception corruption bi ñaata la Sénégal mais xamul tax ñoom ñu les indices de corruption dont il parle au Sénégal déglu rek mais ko ko rapport Cour des comptes bi nga xamante ne génn na bërki démb. mais amagul suite amul suite ba léegi. mais dina am suite. mais yow yaakaar des comptes la cour de vérification des comptes dama lay jàngal tey déglu ma rek ma ne de vérification des comptes ne veut pas dire que les gens non, sont détournés des fautes de gestion et je soutiens qu'il se présente